bu loolu xamunee nag ñun Youth of Banjul ñu mitoon ñu toog ñu waxtaan ñu ne ñun tamit lan mooy suñ contribution pour xee jàngoro bii nga xam ne dafa lëmbee àdduna euh, bu ñu toogee ñu waxtaan suñ leebul te ñu tam ñu wane tamit ne am neen ay mag ay kilifa ñu fi nekk ñu mel ni ñoom Ali ñu mel ni ñoom Ibou Faye ñoom Sow soow ñoom Habis am nga sax ñu dem waxtaan ak gars yi tamit ngay xelal na mu nekkoon loo xam ne ñoom ñëpp a ko welcome parce que dafa nekk situation boo xam ne fu mu nekk nii sikkima lakkandoor ñëpp a tiitandoor so bu ñu waxtaanee ngay xelal ñu ñu ne naka la ñoo def ñun ñun amul technical know how bi so they need guidance ni def mooy ñu dem si Red ñu waxtaan a Red Cross ñoom it ñoom Jaha ñoom Mr Ndaw ñoom Mr Ba ak yeneen boy som ñoo fa nekk ñu waxtaan ak gars yi si biir waxtaan bi gars yi guide ñu tamit mu nekkoon ne medical guidance boo xam ne it was needed at that point of time mooy ñu tënk ko si ñetti fànn mooy one ñu sensitise nit yi because soo xamutee feebar bi xamuloo gravité feebar bi xamuloo feebar bi lu mooy def ak naka leen matuwaay ñu war a jël pour saafara feebar bi dafa métti nga nga nga mun a gum feebar bi so gars yi nañ force ñu sensitise ñu famille maanaam buur dëkk bi yëpp spray mbedda yi yëpp emun si loolu dugga si biir kër yi ñu spray té suñu jógee ci lolu tamin bu gëna ñëw max bu gëna ñëw si mbiri lekka waye yooyu yëpp nekk yoo xam relais suñ ko waye fogg na ne be fuñ tollu ni euh mbiri fumigation bi door sensitisation bi leen jeki, ak fumigation bi nu ko défé won moy bu mu that was on a Wednesday so ñu tiewat né Friday boobu Di leen door fumigation pour fumigate mbedda yëpp mu nekkoon loo xam ne tamit ba meeting boobu mu ngi ko waxtaan ba jóg fa dara dugutoon si suñ poos parce que kon nu ma la ko waxee rek ñun ay ndaw yi kese ñoo jógoon am idée rek waaye amul woon matuwaay amul dara from that meeting ñun si leen toog di gërëm Modou Moussa trop parce que bokkoon na si ñu gënoon a pousse pour ñu door Friday boobu parce que bu ñu waxtaanee dañ ne dañ door euh, sensitisation bi because communication euh, bi dafa require lu bari soo ñu ci soon pour ñu use boobu pour sensitiser nit yi waaye Modou Moussa moo tamit xam nga rek actionnement la mu pousse ne déedéet affaire yi dafa jàmpa fu mu nekk nii waxtu amut ñëpp gis ne lu moo lu moo reyee suñ suñ kilifa yi ak suñ mbokkaay ñi mu la ñuy xam nga tànnal soxla yu bëri liggéey amaatul dara doxaatul mu ne daal neen ak so from there ñu am Pastef foofu ñu move together as a group with the help of Red Cross ñu call Mr Senghor mooy di secretary general of Red Cross ñu woon ko lan leen bëgg a def ñu ndaw yi Banjul ak gay Red Cross yi Banjul mu rafetlu ko trop ne ñu ñoo tam Red Cross on a their euh, am nga on a their capacity lu gars yi mun leen assist this group so ñu tekki from there ñu ñibbi ñu nit ñu ni nee ñu utaan suñu biir ku nekk li nga mun ak ki nga xam ñu door di koolante di puus I can fully remember that Saturday that Friday mun eewoo pour dem pour door dem neen ñu dem Red Cross waaye ci fa ñu bëree bëri xanaa taxaw ñu dem Kanifing seen centre gi si Mr Mr Ndaw ay si Mr Senghor sorry mu dimbalee ñu jox ñu lu ñu dooree ak ñun tam lu ndaw lu amoon suñu poos bi ñu putto gu géda ñu dooroon bu nga ko dooree ne ne Banjul dañ ko divide into three zones muy south central ak north ah, so ñu ne léegi li ñoo def mooy dañoo dooree central parce que moo gënoon a xalaat tuuti tuuti si bu nga ko cegee den ñu ñëw central dañu ñëw north ten ñu ne euh, stratégie bu ñoo use mooy dañoo jëm 5 o'clock ba 7 o'clock ñu wóor ñu sensitise nit yi parce que doo jóg rek ñëw si kaw nit te xamul li ngaa ñëw di spray si so ñu génn a wax a gaay wan gaay yi lan moo tax ñu sos groupe bi ak suñ activité si naka la moo demee te jël opportunité tam di gërëm general public bi because welcome nañ ko trop mu nekkoon loo xam ne def nañ ko Friday 5 ba 7 ñu sensitise 10 mu àndoon tamit ne nguur gi mu ñu dimbale woon tamit ne ñu def ko curfew so mégoon na job bi mu easy ba ñu bëggoon a def ñu def ko si kaw loolu tamit bala ñoo def lu nekk ah, comme ni ma ko waxee rek ñun ndaw yi mu waxtaanee suñu kilifa yi digtal ne ñu dem si buri Banjul because fii dafa am kilifa tamit dëkka bi so kool nañ ko ñu wax ak moom mu rafetlu affaire si support idea bi doxal so ñu def ko three days yooyu yëpp mu nekkoon lu successful ba den di following weekend ñu usaat the same strategy ne leen toogaat ñu waxtaanaat naka leen koo defee boo house to house la woon mu nekkoon affaire bu métti ñu door ajuma dem afdaay waaye mu amoon ay few kër yu des saturday bi buñ eewoo pour door pour communicate bi boobu dañ ne duñ ko def guddi parce que guddi ñi jàngi tëdda doo mën a dugg xam nga privacy yooyu noonu soo ñu ko def borom tri ba ay 7 8 ñu fu ñu mun a jeexal ñu jeexal ko so ñu door Friday boobu waaye unfortunately mënuñ koo jeexal waaye si Saturday bi bu mu plané dañ koo def ñu ñëw door dem ba si kanam maam yàlla gi taw so ñu ajos ko Sunday bi ñu ñëwaat boobu moom dëgg dëgg rek gars si def extra because dañ jël double shift dañ jël suba jël ngoon ñu mun a ñu complete south complete central mu des nord parce que Banjul ndaw na ndawut ñun bu ñëw xayma affaire si den fogoon ne comme nu ko dividé comme nu ko defee si mbedda yi dina easy woon si kër yi waaye in reality was not that easy so noonu leen poussé pousse ko ba di following weekend ñu jël note ñu complete boobu noonu foofu leen tooloo uh, si liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa Banjul. di nuyu waa Gambia man maay Badou Ndiaye ñu gën maa xamee ci Ali Baba dëkk Tobacco Road bu la neexee nga ne Ali Baba Tobacco Road bu la neexee Ali Baba Banjul ah <laughs> waaw noonu la demee ku baax ki te yow it ngay suñ raka ba pare ñu encourage ci liggéey bi ngeen a def nii di bég ci Sahel nag lool te naan nit ñi mbooloo mi nañ bàyyi Sahel xel du noonu waaw ne fi ngeen teg seen tànka foofu la pour ci gàttal rek di leen xamal ne Sahel ñun ñu ngi ubbi suñ bunta saa su ne pour yéen parce que yaa sa collègue si ay xar kanam yuñ miin ngeen te ni ngeen a liggéeyee dal na xel kon yalla len yalla yalla gën a fi ngeen bugg online TV bi mu dem yéen ko xam yalla len ko yalla yombalal waye yalla na lépp di barke. wa ma delu ci wat ci li suma nga bi wax malik parce que liñ ci wara wax yeb wax nako ci li initiative bi mu rafet moy ne Gambia dafa jot. ñu bañ lu nekk rek di xaar government bi nañ waxante dëgg ku baax suñ government si mënuñ lu bari te nama ma yàlla baal dafa jafe dégg waaye mooy li am Gambia Gambia fi mu nekk ni li ñoo oyee politique dafa nekk jàngoro bu ñu géteen lu nekk dañ ko politiser te buñ buñ teyoon tuuti rek dinañ gis ne ñun Gambia fi politique lim ñu yaaxal ëpp lim ñu jagaral kon boyi yi fiñ génnee su dee doomi réew bu baax nga mënu lo ci ñaka anda mënu lo ci ñaka anda parce que halati ñun ñëpp la woon waye alhamdullilah ba nga xamé ne yalla feeñal nako ci ñoom waaw ku melni man nak ñu yegal man fogna fa tok diko di ko halat fa lañ tolu fa lañ tok yegal mako den mu nekk lo xamne li suñ sañon halat bi ci ñun la jógee waye gis nga ko lim la wax yëpp nonu la demee te wa Banjul dañ ko jëlal seen bop koñ buñ duga bi ñoo pompe kër koñ buñ duga wa koñ bi ñoy jokk ñoy tëji bunti kër yi dugal tim bi ci keri. kéri kon munuñ lu dul ne ñi ko xalaat jërëjëf waaye ne waa Banjul jërëjëf waaye jërëjëf ju mag ji dafa dem ci Red Cross parce que ñoo ci taxaw taxaw taxawa taxawaay boo xam ne bii bu dutoon ñoom dara du dara du xew waaye kon ñu ngi leen a sant ñoom Red Cross di leen gërëm mu Abdallah mbiri Gambia Covid 19 bi liñ ci waroon wax yëpp Malick wax na ko ci. independent body la independent group la bu am xalaat bu rafet rek waaw di def li doomi réew di war a def te waa Banjul nag jàpp te incha allah ñu ngi xamal nit ñi ne du em fii waaw mboolem ci loo xam ne lii lu ñoo mun a def pour lu yóbbu parce que Banjul lañ féetoo yàggu xëj na ñu ngi ñaan yàlla ñu xëccu buñ jógee Banjul niñ ko waa Banjul jëlee waa KMC jëlee ko noonu. waa biir ka ma jëlee ko noonu su ko defee lu xew rek duñ xaarati government parce que ñun itam ñooy government bi sax parce que ñoo ne ci dëkk waaye lii suñ part ñuy def suñ quota understand nga ci fi nga xam ne fii fa la suñ mun mun am su ko defee government lu bari dina ko yomba understand nga loolooy loolooy ting bi Baye Fall bi ah alhamdulillah waaw mu ngoog sa correction bi because soo gisee bi ma wax bi ma introduce suma bopp waxuma ne NPP member laa du lu taxaw fii understand and am di youth coordinator waaye du lu taxaw fii because Banjul ci ñun moo gën a màgg any party understand nga parties du come go government do come go waaye Banjul fii lañ ko fekka te nag fii lañ koo bàyyi kon te ñun amuñ fu dul Banjul Banjul la ñu gënal luñ mun am INFAC sax ci loolu lañ sukkandiku ba tax ñu poroxal suñ boppa ci NPP yi understand waaye feebar bi suñ demee ba fi mu toll nii nit naan la amut nit naan la politique la dafa daw yaram kilifa gi waaye nag nañ sant yàlla ba nga xamee ne ñu ëpp ci nit ñi xam nañ ne lu am la parce que buñ fàtte yàlla gën a mag yàlla gën a mag feebar bii te am na ñu ko alhamdulillah alhamdulillah parce que ndoo yi engagement biñu jël halat biñu jël ak fiñu génnee rek gis nga boy dox bu baaké ku boy dox da nga anda koy dox na ngeen mëna dimbalanté koy dox munta anda koy tok understand nga ñi jàpp ne politique la tay lu la parce que lu né fanga lu né fanga kenn du ko jeex gis nañ ni mo def deka deka yu we see it waaye na ma yàlla balal ci jàpp jégal leen ma ci wax ji sàggante boobu moo tax bim ñëwee mu pénétrer ñu parce que waroon nañoo def attention luy tër i Amérique tër i Germany tër i France ma maam booy ci ñun waaye foyantu googu moo tax ba ñoo na jël matuwaay moo tax bem ñu àgga fi ñu àgga tey waaye alhamdulilah ba tey biñ amee ñoo xam ne ni ñu ngi taxaw tembe tembe pour jàppa ci xeex bi te government a ngi cee def liñ mun nit ñu baax ñaa ngi cee def liñ mun xale yaa ngi cee def liñ mun parce que ku baax ki li tax ñu tëj jàkka yi tëj jumaa yi tax nit ñi aji ji wuñ makka korite julli ji wuñ loolu mënut a yomba loolu ku ko gëmut da ngaa tey teylu da ngaa tey teylu mënuñoo dugal ci boppi kenn nag nga gëm dara bàyyi foos waaye alhamdulilah ba nga xamee ne ñu ëpp ci Gambien si gëm nañ ko te ñu ngi ñu ngi jël matuwaay ak coow li yëpp li ci munta di am mooy ne wér suñ wérgu yaram dafa am ñuñ ko dënk ci dëkk bi ñooñu liñ ñu wax suñ buggee noppale ko nañ ci sax den leneen luñ ci yokk rek dafa gën a yombal suñ wérgu yaram mooy ñuy sol face masque di raxasu saa su ne te social distancing bi ñu bàyyi ko xel parce que ki nga xam ne boo amee malaria da ngaa dem daw dem ci moom bu la ne simeekul nga simeeku bu la ne dama laa péngu nga ne ko waaw olof fa sa doon dara xew mu ne la nii nga cee def nga ne ko dédét ku baax ki yow yaa xamut sa boppa yow yaa xamut fi nga teg sa tànk kon lenn li ay foyantu la ñàkk ko gëm loolu mbiri nit ki la munuñ cee sori. waaye ma ne la sant nañ yàlla ba nga xamee ne ñi ëppa ci gambien si gëm nañ ko te ñu ngay jël matuwaay yal nañu ci yàlla gën a sutura waaw fi mu ne ni li nekk ci dëkk bi moo ñu doy ci xanjara dafa am lu lu ñu dal mooy covid 19 bi mooy mbas mi yaa ko wax du dégga mooy mbas mi te du yàlla dogal du feebari caaxaan kon mbooleem lu am loo xam ne li lu dul saytu suñu wérgu yaram dañ koo tegee ngum boor moo tax I do believe ne in the at the initial stage président bi ci boppam loolu la wax mbiri politique nañ ko tegee boor mbiri rivalry nañ ko tegee boor mbiri tribe nañ ko tegee boor wan Gambia lañ gis fi mu nekk nii ngéejoo la ñu tëj mooy feebar bi foog ñu booloo mun koo daan bu fi jógee nag ku nekkaa la nga gëm ku nekk la nga bugg japp ku nekk nga def waaye fim tembe tembe UDP PPP NPP ak any other piece nañ harangum ci pega bi wérgu yarami nit ñi moñu itel parce que bo wérut sa naka nga politique nañu waxante dëgg gis nga Sénégal niñ def makisala Sall bi mbir miné dafa bañ ñu politicize ko bala ñu nan ni ak ni political opposition leader si ñep la ñëpp xam ne lii xare la ñun Gambia fi mu nekk nii Gambia is an epic centre ñu ngi ci digga bi fi mu nekk nuñ xeexee mbas mi Baye Fall bi moo nekk suñ bopp bi président ban ngi jéem liñ mun lim mun te ñun mi ko jege mi jéem a àndaa moom it loolu la sas soo ci loolu lañ nekk bañ na ko ba wax nañu ne suñ nekkee ci liggéeyi mbir yi Covid 19 bi sax buñ fa tudda politics te loolu la ñoo doxee alhamdulilah di ñaan yàlla mu dimbale ñu ci ñu daan ko ah waaw. ñu daan ñu daan Covid 19 bi mu dandu den yeneen yi mboor yu ndaw yi it ñu xam nga rek. yan mboor yu ndaw yi. ma yu ndaw yi mooy loolu bu ci àggee dinañ ko leeral. noonu. leeral ma ne non leer na bi fi mu nekk nii ci Covid 19 bi lañ nekk hmm. waaw. wa buñ ko daanee den ku nekk delu ci li nga nekkon rek nit ñi am seen bop loolu mo ñu loolu mo ñu because bu dee politique bi politique bi ku nekk da nga yaakar rek ne kima andal mo moo mun a bi kanam loolu rek mbiri benn fan la doon kan ca sanil ka yalla ne moy tok moy continuer waye du buñ faté ne politique bi bu mu suñ time lool understand ga? parce que lu dox suñ diggante mooy li ma la Gambia moo gën a mag any party Gambia moo gën a mag any individual kon en tant que Gambien nañ leen ànda booloo jubloo ngum ci lii suñ paree suñoo am différence sax sax na doon luñ mun a waxtaan te continuer parce que suñ dunda moo gën a important any other thing yal ñu yàlla dimbale ñu daan bas mi ku nekk amaat sa bopp ñu delluwaat suñ ité yi ci barkeb Serigne Saliou. Ah, dëgg dëgg mënuma koo xayma parce que xam nga ñi yaa ngi yokk rek ñu ngi ñu ñëw mu nekk loo xam ne lu moo taxoon ñu sos ko because amul boundaries amul limitation so nekk na loo xam ne everybody is welcome because soo bàyyi xel tur bi sax mënoon na nekk one mën na nekk Banjul waaye we label it as one Gambia pour wane ne ñun ñëpp ñoo si em ku door dimba ku ñëw tey ak ku ñëw ëllëg ñu ñëpp a am su pour xaymal la ñaata nit ñoo fa nekk fu mu nekk dina xala miiti macha allah lu baax comme suma mag ji nu ko waxee rek lu baax moom soo ko ootee ñëpp si la ñëpp ñoo la see fekk si te loolu moo xapoon et mu nekk nit ñoo xam ne tam they are very serious and responsible nit ñoo xam ne ñoo si nekka ñu nekk si dëkk bi ak ñu nekk si biti ñu ngay am calls from everywhere ñu jaay nga rafetlu initiative bi not loolu emun si loolu rek ñu ngi jël seen doole xam nga seen xalaat seen waxtu di ñu teg si yoon yu correct di ñu push pour ñëw daan feebar bi. waaw comme comme nun la ko waxee woon rek ñun ñooy nguur gi because soo nee nguur mooy lan nit yi ñooy nguur gi understand nga ñun bu ñoo door li tegu nga si politique soo comme nu ma la ko waxee initially ñu ne ñoo ñëw toog. Watan lu ñoo watan génnee si suñu pos ak nit ñoo xam xam nañ leen ñu o gaay yi gaay fekk ci ñu li dimbalé ñu mbiri politique government jox ñu dara ñu ni neen ak ay nit ñu wuur rek anastang ñoo door li ak Red Cross té te tay lebul bobu leen nekk waye tamit comme ni la ko waxé rek ñu nimbal leen buga si lebul bu mëna ñëwé dina ko welcome yépp pour xé fébar bi mu génn fi because am na neen plans yoo xam ne tamit bëgg nañ koo def te loolu nekkul loo xam ne tamit liggéey bu ndaw la liggéey bu mag la so ku ñu mun a dimbale rek dinañ ko welcome soxla nañ ko trop te dinañ ko welcome comme nu ma la ko waxoon aali yoon rek ñu ni neen ñoo jël si suñ poos ak suñ good wishes si suñ brothers suñ sisters yoo xam ne am nañu si gaa yaakaar dem ne ñu waxtaan ak gars yi on a sànga ñooñu ñooñu dimbale dooleel ñu waaye comme ne from the ministry or somewhere else non non non non si suñ poste la jóg jógee ak suñ connection si ak ñu nekk abroad right now ñu ngi ibbi GoFund because of comme ni ma la ko waxee rek liggéey bi dafa am lu bari lu mu soxla understand nga nekkul liggéey bu tuuti waaye comme leebul bi nga waxee egga eggul foofu egga